bu ma ubbee école bi mel nii dama ko war a ubbi tax ay moroom rek ñoo ko muy ubbi wax dëgg yàlla mais dañ koy ubbi autrement autrement mooy yemuñu si bëre simple ak bëre door rek boo gisee ñu dem seeti ku mel ne Laye Ñombor ku mel ne Lato ku mel baal Balla Diouf waxtaan ak moom c'est parce que dañuy viser loin dañoo bëgg former ay lutteurs olympiques ay champion ma dañ bëri ñu ay champion du monde ay champion d'Afrique maanaam ay champion olympien mais kon war nañ ñun profité yokk suñu ay leneen seen ay vision yokk loo xamante nii qualité waaw dinañ am ay champion yoo xamante nii day jéggi ay doy day romb Papa Sow dina romb Modou Lo dina romb kenn ak keneen dan ñun li ñuy def ci làmb bëgg suñu raq yi ñëw fii dëkk parcelle def plus Modou bu nekkee roi des arènes bëgg nañ beneen roi des arènes ak champion du monde champion d' Afrique loolu la ñuy defee loolu ñu bëgg a ci ñëpp nag di profité nag di remercier Modou bu baax baax a baax ah waaw ndax ku bàyyi nga ak ma war a bàyyi ndax booy la boo xamante nii xoolul succès xoolul xaalis respect la am wàccee boobu ba suuf fu ngeen ànd mu wàccee boobu ba suuf man nag ku ma yëg rek ma faal ku ma faal dama faal te moo tax maa yëg bool ma si boppam kon dina ko mórloo sax su ma gis dama koy téye kon nag maa ngi koy bu baax a baax di ko nuyu turu benn gërëm ñu ngi waaw di profité nag Rachid académie nag bi ko installé biir parcelle c' est pour parcelle yëpp parcelle yëpp amuñu frontière waaw di wax ne daal entraîneurs yi sant naa leen monde lamb yi fi daje yëpp maa ngi leen sant leen gërëm di sant la presse aussi amuñu seen fay wax dëgg yàlla man sama xol dafa seet ndax woon ñu wuy rek dafa neex sant naa leen gërëm naa leen wasalaam jërëjëf Aziz